alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala man la rasula wala nabiya baada sayidina wa maulana muhammad ibni abdillahi rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi altayibin altahirin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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla rek di safaat ak yow li ma sosoon ak yow ci yaa ayyuha llazina aamanu uzkuru nicmatallahi alaykum ci war a sax dàkk ci fàttaliku xéewali yàlla yi. yi mu dotti ci suñ jëmm yi mu bari bari goo xam ne kenn mënu koo lim waaye ñàkk sant yóbboo nañu xéewal ya la muy bari bari mënatul dara ku xamee milliard di xami problème boo demee problème ba yëpp ñàkk dal ñàkk doylu ñàkk sant moo la ko yóbbu moo tax ñàkk sant gi yaatu gim yaatoo tax ji jamono koo dajeek boo yeboo rek nga laaj ko ne ko ñaata problème nga xam waaye jii jamono gëwuma ne ku xamut problème moom nekk na fi xanaa kay gën a bëri lee ne waaye problème moom xamul kenn ku ko ñàkk ci ñun ci ji jamono am na koo xam ne problème am ba wéradi la am na koo xam ne problème ba problème kom kom la am-am am na koo xam ne problème ba jëkkër ju bon la wala jabar ju bon am na koo xam ne problème doom yu bon mujj juddu mujj bon mujj juddu gën a bon xale yu amagul quinze ans di dorogew ñii di naan sàngara ñii di tux bon bi ñañ seen waajur yañ xormaaloon yëpp fonk leen bañ màggalee seen sutura xawee ko na ku leen warutoon a yab yab na leen te ma nga ma nga jaaree yab ga ci njaboot kon yàlla ne innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun jam waxoon jamono ju ne mu gën a dëggu waaye rawatina ci suñ jamono ji xalal moom bu demee ba yàqal la say mbokk alal dem ba yàq sa digganteeg say xarit alal dem ba yàq sa digganteeg say dëkkandoor lépp lu alal man bu ca nit ña tolloo ci say mbokk say xarit xam nañ ne xam nga ko waaye xel dajut wax la ko xalal jooja soppeeku na fitna waral la kon inama am wàllukum jooja fitnatun dugg na ca waaw laadukum doom bu demee ba dàll wu baayam soloon jot na ko waaye terewut ma nga dooleem mi ngi xelam mi ngi kartanam waaye léppam baayam a ko yore am na fi ñoo xam ne seen baay tey silmaxa la nekk ponkal yore jabar terewut seen baay leen yor ba yore seen jabar ya léegi doom lu muy jën seen baay fay courant moo yore dépense seen jabar ya ñu bëggee fóot yër seen yëree ñoom ya ñuy sol sax dañoo demal ci paa bi mu jox la mu jox la maanaam mu jox la saabu jooja doom lu muy jëriñati te li nga koy defal yépp amuloo benn kàddu ci moom doo ko digal mu def doo ko tere mu bàyyi baat boo ko wax boo amul sens mu delloo la ko soo bëggee tàngal mu sumee ko xeex ak yow ba tax na jamono jii ku ne li ma naqari lépp tey ma wax ko wala li ma naqari lépp tey mu jeex ci kër gi yow moom mu tabaxoon kër gi sonn ci yaay mujj xat ci kër gi jigéen ñi dañ mujj farak seen yaay nga mujj nekk ci coono yàlla yàlla bu la yàlla naqtoo nag nga nekk mag moo xam ne góor ak seen ci njabar nga xoon moom moom noo gën a màggatee gën a ñàkk sa kilifteef ci kër ga maa la ko wax su ko defee kon nag kooku kon dugg na ci innama amwaalukum wa awlaadukum fitnatun jamono ji xalal yu bëri fitna la ci seen borom waaye jamono ji njaboot gu bari fitna la ci seen waajur ya ci seen yaay ya wala ci seeni i baay ya wala ci seeni i mbokk ya te dara nga ca mënut kon dëgg-dëgg ñu ngi dund jamono ji gën a xées ci jamono yi gën a bon ci jamono yi jamono joo xam ne daal tabaarakallaahu nit ku nekk ñaareel lam la mu am mérite mayut ko ko lu ca bëri mayit mérite mayut ko ko ndax may bu garanti wut la may bu garanti wut rek dootul laajoo dootul laaj mérite waaye may gu garanti dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne kii lim xam xeyoo na ko ko moo xaajowoo mérite waaye mayak ak mbarit xaajowoo wut mérite ndax àdduna di cëram yi fi ne seexlu wut kenn cëri àdduna yi seexluwuñ kenn loo bon bon yaa ko tax a jug loo ñàkk ñàkk a mat yaa ko teree mat foofa nag bu fa jamono yeggee musiba dëgg dëgg dal na ci suñ kaw kon nag nañ xam ngëm xam ak doylu xam ak wakiil jël suñu mbir yépp tabaarakallaahu delloo ko ci yàlla li ko saxaabatul kiraam tabaarakallaahu ñi nga xam ne ñoom lañ war a teg bët buñ bëggee baax jële woon seen mbir yëpp delloo ko ci yàlla ña noonu ña ci ëpp màkk lañ dëkkoon ci seeni baay ci seeni maam xalal ju nekk am nañ ko fa waaye ba ñu naree ñàkk seen diine dañoo won gannaaw lañ xamoon lépp dem sooyo ji seen diine ja ca Madina xam ne lu waay ñàkk boo xamee diine ñàkkoo dara lu waay mën a xam boo xamee diine xamoo dara boo xamee diine ñàkkoo dara waaye lu waay ñàkk boo ñàkkee diine xamoo dara xoolal abu talhata al ansaari yu ca xaswatu uut góor la woon gu mën a sànni fett yàlla may ko ca lool muy sànni ba fett ya jeex mu ñëw ci kanam yonentu bi ne ko nafsi li nafsika alfida wa wajhi li wajhikal waqa wallahi sama fett ya ma doon fett yëpp jeex na njote naa la sama bakkan bi sama xarxaram bile def naa ko muy protéger sa jëmm ji muy abu talha ñuy sànni yonent bi ay fett di ko dëbbu ay xeej mu koy protéger ba lañ fekk ca gannaawam nga ci ay jam-jam kenn xamut nuñ toll ba tax na ñëpp a dawam ba mujj moom kenn moo fa des bañ koy tuddee talxatul xayri gannaaw bañ ko daan dàkkantalee talxatul jawaat mu sowe yonantu bi nekk garde kooram moo taxawoon ne yaa nabiyallahi bi abi anta wa ummi yow yonantu bi jotee naa la sama ndey ak sama baay bëgguma dara jot la ciy fett sa nit ñi lu la nara dal na dal sama kaw yow nga mucc te man ma sowewu yow nga mucc te man ma man ma alku ndax man sama dee wàññiwut dara waa yow boo dee ñëpp dee ci sa dee ji demal nga seeti Saxd ibnu Rabiic ba mu nekkee ci mujj ak dundam ca la dénkaane saxaabaay yonantu ba ne leen daal nañ ko jañal tabaarakallaahu moom ma ngay wax ne bi an yadfaxu anfusahum samanan yaftaduuna bihi nafsa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi xaswati usiba Saad bnu Rabiic fa qaala nabiyu ma maanaam man rajulun yanzuru maa faala Saad bnu Rabiic fil fil axyaa huwa am fil amwaat fa qaala rajulun min al ansaar ana anzuru laka yaa rasuulallah maa faala Saadu fa nazara fa wajadahu jariihan fil qatlaa ah keroog xareeb Uhud moom mu bokk ci ñañ blessé la muy sonn sonn moom Saad ibnu Rabia moo doon njaatige Abdurahman ibnu Awfu ca Madina bëri woon xalal lool nekk milliardaire wax ne xalalam lépp da koy xaajoog Abdurahman ibnu Awf fittiwoo woon na sax fase benn soxnaam bu paree mu jàpp yedda mu may ko ko mu ne ko wan ma yoonu marché bi rek dul nii ala suuq dama ko wanee martaba muy commerce ba mujj moom tamit nekk milliardaire comme moom ba dafa daan wax ne moom Abdourahman bu ma toogatee fenn jug fa dem leen ngeen vérifier mën naa fa fàtte sama xaalis bi fu ma toog fàtte fa xaalis ngir bëri le moom mii nag keroog xareeb Uhud mu bokk ci ñañ blessé la mbir may métti métti dafa wax saxaay saxaabaa yonent leen dénk ne waaye waaye dem leen ngeen sowe bakkanu yonent bi yonent bi moom sooy wona mu jóg yonent bi ne waay ana kan mooy dem di ma xoolal waay Saxd ibnu Rabiya ndax moom bokk na fi ñu dee xam ñooy dund la bokk benn saxaabi ne ko maay dem seetal la ko bi mi métti lool mu dem xool ko fekk ña ngi ko jam mu nekk ci mu jëg dundam. mu ne ko yonent bi ma digal naa ñëw xool la ndax yaa ngi dund wala yaa ngi bokk ki ñu deeñe mu ne ko man daal ana fil amwaat bokk naa ci ñi dee ñu daanaka waaye waay jotaleel ma yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamal ko ne ko Saad ibnu Rabiya ma ngay wax ne yal na la yàlla fay yiw yow yonantu yàlla bi ci aw xeetam jotalal ma ko ci mu jotalal ma nitam ñëpp muy saxaba yi ak nuyoo xamal leen ne Saad ibnu Rabiya mi ngi wax ne xamul xamalul ngànta kenn ci yéen fa yàlla moom daal bu yonantu bi muccee jàpp na ne moom bu ñëpp deewoon tamit ñëpp mucc nañ su ko defee kon nag lii la wax ndeysaan doora génn àdduna moom sax dum nu ak la ca xew kon nag kenn du saxaaba yonent bi ci bëgg yàlla bëgg bëgg bëgg maanaam yonent bi salaa salaam keroog la yonent bi ne rahimahullah nasaxallaahu nasaxa lillah wa li rasulihi xayan wa mayitan yarhamukallah ya sahabata rasul ala man ya man allimtum allimtumuna a kayfa nuhibbu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadihi almawaqif min sahabati rasul sallallahu alayhi wa sallam dalilun qati'un ala fahmihim anna najat rasul sallam najatun lahum kon ba mu ñëwee yonent bi ne moom de dund na di laahi biir te yàlla rek tax génn àdduna di laahi biire te yàlla rek tax yàlla na ko yàlla fay aw yiw moom Saad ibnu Rabia gis nga ko kon ni mel ak bëgg yonent bi la ko dal lu métti métti yëgu ko comme nee na yonent bi sooyewu na rek moom bu dee tamit jàpp na ne mucc na waaye demal nga seet tabaarakallaahu dañ daan loree yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu euh, ci commencement wu njëlbeen wa wooteem waaye ànd ak loolu lépp keroog la gën a gëm yàlla keroog la ci gën a dëgër ar rasulu yusa wallahu yusallimuhu ñu ngi lor yonantu mais yàlla nga koy musal ba ko yàlla yónnee muy gindi nit ña jëmee leen ci yoon wi gën di bégle képp ko ko gëm ci aljana di xuppe képp ku ko weddi safara su ko defee moom nag lu nekk ñu teg ko ci kawam yàq deram ba yàlla ne ko wasbir ala ma yaquluun ndax ne innahu la majnuun lu ne ñu wax ko ko xoolal umu jamil ak abu lahab sox maanaam jëkkëram ja ña ngi koy lor di jël ay dëkk ak i fóotit ak i mbalit di ko këpp ci yoonam bi ba yàlla wàccee saar dal ci abi lahab tabbat yada abi lahabin wa tab maa agna anhu maalu wa maa kasab sayasla naaran zaata lahab ba saar wa jeex umu jamil til tanga xeer wa ñëw fekk yonent bi ca Kaaba ga mook Aboubacar ma nga gis Aboubacar waaye gisul yonent bi mu ne ah yow sa yàlla ji moo may xas daal di mën a wax Aboubacar ne an sa naxandandoor bi ma jël xeer wi teg ko ci kawam waaye ndekee dafa gumba mënta fexe ba gis ko dafa gumba gumbaak xool gi yàlla ne woon bëti saahir ya gumba wut waaye bëti biir ya mooy li gumba waaye ànd ak loola lépp yonent bi sallallahu alayhi keroog la gën a dëggu ci woote mbaak lu lor yey métti métti ni ko ahmadul busiri yu waxee abi jëli nag na muy loree yonantu bi ibnu mas'ud mooy wax mu ne yonantu bi doon a julli ca kaaba ga abu jëlin fekk ko fa fekk ak mbooloo xam ma jàllal bi ko jël sébiritu nag wuddee sotti ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di ko lor jël tànkam ba dëgg ko ci boppam bi fekk ma nga sujoot waaye dara keroog la yonent bi gën a gëm yàlla gën a muñ tamit lor ya Fatima doomam yay jooy waaye terewut mu nekk ca lam nekk rek kon dëgg-dëgg nañ delloo suñ bopp fi saxaba yi jaaroon tabaarakallaahu ñi xam ne lañ la leen daloon tabaarakallaahu moo leen may tey tey may gu réy gi nga xam ne xam nañ ko xoolal ma tabaarakallaahu jigéen gu baax googu di almaratu day naariya nga xam ne jëkkëram ja lañu rey ak baayam ak mbokkam ci xaswatu uxut ba musrikuuna yi siiwalee ne rey nañ yonantu bi rek aa ana nabiya xat xutila moom li moom moomu la rey jëkkër jaag baayam ak mbokkam yaag lépp mu fàtte musiba muy dal ci kawam ngir ak yonantu bi ñu annoncé ne rey nañ ko ba mbir ma xibaar ba ñëwee nag bu wér ba ne yonantu bi dara dalu ko moom mu sant yàlla ne kon man tamit dara dalatuma talatuma sama jëkkër talatuma sama mbokk talatuma sama baay comme yonantu bi mucc na daal man daal yëgatuma dara ci man kon ñoom yonantu moo leen gënal seen ndey gënal leen seen baay gënal leen seeni mbokk ba daal bu yonantu bi muccee rek ñoom jàpp nañ ne mucc na ñoom ñëpp kon ab jullit foofu la war a toll ci ngëm ci cofeel ci jéem a roy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sayidul awalina wal axirin waaye nag wa kazalika najallaahu almuminin wa kama najallaahu nabiya min alcharri walmakruhi najaa atbaahu wa rafaahum mu ne yàlla ni mu musalee yonantu bi ci gaayu bon ñi seen pexe ya noonu la yàlla musalee saxaabaay yonantu bi ci pexe noon ya ak seen loraange yépp mucc nañ ca mucc lislaam mi miñ doon bàmbaane mujj nekk ab waxambaane wuy daagu tey ci juróomi continent yépp te kenn ñemewut ko joxoñ baaraam moo tax fuñ tollu war nañ di fàttaliku saxaabaay yonantu bi tedd ya dalee ca Aboubacar Seyduna Omar Seyduna Ousmane Seyduna Aliyu Seyduna Talxatu Seyduna Subayriyu Seyduna Saadu Saïd Seyduna Amir ibnu Jaraax demeet Seyduna Abdurahmaan ibnu Awf saxaabaam yëpp cent vingt quatre lañ ku ci gën a baax nga ne kii la Aboubacar di seen kilifa gën ci mboolem saxaaba nañu jàpp ne ñoom garab ak lislaam gi tey ñuy kerloo di lekk meññant mi ker ga neex meññant ma neex ker ga neex wallahi ñun ñi ko tal ci tax ñi tal ko wala ñi tax ñi tal ko ñoom taluñ ko woon muy sahabatul kiram yu tedd ya àndoon ak bi ñoo jëloon seen deret suqatale ko garab ak lislaam ba ker gi neex tey meññant mi neex xet gi neex maam xalifa xool leen mënul leen a muñ mun a ulaayika al qawmu xaqan ahlu tuqaa wal maali usuudu xarbin naharan ruhbaanu bardi layaali asna al ilaahu alayhim bima tala bi yu baax yooya nañ leen di di leen ñaanal du julli ci ñoom sopp leen di leen jéem a roy doonte mënuñ leen a jot waaye ku roy ku kenn mënta jot yow a di ko roy tamit kenn du la mën a jotati waaye kuy roy ku ñëpp raw yow mooma tamit ñëpp lay mujj raw kon saxaba yonent bi mënuñoo baax ba mel ni ñoom waaye koo mënta mel boo ko royee yow a di ko roy tamit kenn du mën a melati ni nga mel yonent bi nee na kenn ci yéen bu duddale woon lu toll ni jabalul uxub ci wërsëg ci wurus manta tax mu jot genn wàll ak saxaaba saxaaba yi daal yàlla moo leen bàkk ci laa yastawi minkum man anfaqa jooju mu mu bàkk leen yonent bi tamit bàkk leen ne inna allaha fadala ashaabi ala jamii alxalaa'iqi wal anbiyaa wal mursaliin sama saxaaba yi yàlla dogal na ñoo gën ci mbindeef yi yàlla yëpp ñu dul yonantu yi rek saxaaba sama saxaaba yi ñoo leen gën waaye tamit moo tax seex na tijaan yi mos na toog benn taalibi bu xiir laaj ko ne ko xut bu moom moom ak saxaaba ku ci gën yonantu bi ne ko seex na tijaan yi ne ko saxaaba yi kenn du leen tëkkaleeg menn mbindeef mu dul yonantu ya xam nga saxaaba yi niñ mel mu ne ko déedéet mu ne ko dañoo mel ni porentaan mu ne ko xam nga xutbu yi muy aqtaab yeeg niñ mel mu ne ko dañoo mel ni ki melentaan xam nga nag porentaan li mu naaw ci benn seconde melentaan mën na koo dox téeméeri junne yi xatta du tax mu yegg fa mu ne ko saxaaba yi ñooy porentaan yi yéen a tuddee leen xabaloon mbagg mi ñuy naawee ñu jël seen bët ya arrosé ko ci jëmmi yonantu bi moo tax mënuñoo tolloog kenn ci may mënuñoo tolloog kenn ci ngëneel keneen ku dul ñoom nag yaay melentaan sa dox bu yéex boobu xamoo lu ko gaawalal moo tax kon saxaba yi kenn du ñoom li Seexu Tijaan waxoon bañ ko ko laajee ci ifaadatul ahmadiya maam Xalifa Ñas way ko ne wa qaala inna sayrana bi nisbati li sayrihimu mislal qataa wa namlati mu ne daal dox bi saxaaba yi dox jëm ci yàlla ak dox bi ñu dul saxaaba yi dox jëm ci yàlla boo ko comparé dafa mel ni ki porentaan ak melentaan kon nag saxaaba yaay porentaan ya ñeneen ñu dul ñoom ñooy melentaan ya bul fonk sa sëriñ ba di ko takkal garaatab ab saxaabi yu mbaa nga koy tëkkale kenn ki saxaabaay yonent bi ñoo ñooña duxuñ moromam ñooña ñoo joxe woon deret ya keneen ku dul ñoom yaa joxewoon woon ku ñu laaj ñaq ku ñu laaj deret nag boo joxee ñaq ngaa war a sant waaye ñoom dañ leen a laajoon ñaq ñu far joxe deret ñun ñi laaj ñu deret ñu far joxe ñaq kon xam nga ne saxaaba yi duñ moromi kenn bu kenn tëkkale leen ak kenn bu leen tëkkaleeg sab sëriñ boo ko defee lay yàqule bu bu la xërëri di jàpp mukk sëriñ boo mën a yaakaar kat dafa takk ndiggam di dàkku barkeeb saxaaba ya di leen bàkk di leen way di tudd seeni manaqib ak seeni jaloore noonu nga fekk seex na Tijaan yi yëkkati darajaay saxaaba ya ci jawaahirul maani wax ju ju ne wax na ko ca ñoom su ko defee timit noonu nga fekk maam El Hadj Abdoulaye Niass di yëkkatee seen daraja ci mufidul anaam noon nga fekk tabaarakallaahu Seydil Haaji Malik yëkkati seen daraja ci xilaasu zahab noonu nga fekk xaadimu rasul si Ahmad Bamba yëkkati seen daraja ca xuqal bukaa'u ala saadaati amwaati tabkil araadi alayhim kas samaawaati nag noonu nga fekke cheikh al islam di yëkkati seen daraja ci dawaawinu sitta noonu nga fekkee Mawlaaya Xaaji Ahmadu Dem yëkkati seen daraja ci diyaa u niirayni noonu nga fekkee Mawlaaya Xaaji Omar Ndaw ma nga yëkkati seen daraja ja tabaarakallaahu ca yawaaqib téeréem bu am solo booba noon nga fekk mawlaaya alxaaji Habibu Sàlla téeréem bu am solo bu mu bind ci siira ñu yore ko nga fekk mu ca yëkkati darajaay saxaabatul kiram ya naka noonu maam limaamu laay maam amari ngoone ndaak ba tabaarakallaahu borom njaasaan bu kunta yooyu yëpp boo demee fekk ca ña takk seen digg di tarbiyahu ci gannaaw saxaaba yi ndax xam nañ ne saxaaba yi duñ moromam kenn ku dul yonantu yi rek saxaaba yi ñoo la gën saxaaba yi li ñuy bëri bëri sayduna abubakar moo ci gën gannaawam sayduna omar gannaawam sayduna osmaan gannaawam sayduna aliyu gannaawam juróom benn ña ca tegu te yonantu bi dëxalu leen aljana saadog said ak abdurahman ibnu awf ñooñu ci lañ bokk moom fukki nit la taxawoon ne xaw ma ñan waaye yéen aljaana ngeen jëm keroog ba mu leen ko waxee lañ gën a takk seen digg di gën a góorgóorlu ba niñ xëy xëy ji seen borom ndax wóoluwuñ ngayam yàlla. ah ba Seydina Ousmane mi ngi ne ko aljaana nga jëm te réexul guddi gu jot bu jullee gexe naafila ba def safa mu des benn rakkaxab witar mu la benn rakkaxab witar lay taxaw commencé baqara ba ci mina jinati wa naasi dooraru ko. te wax nañ ko ne ko aljana nga ba pare kon ñun ko waxagut fu ñu war a jëm xanaa gën a rey suñ bopp rek ci jaamu yàlla laabal xol yi wéetal yàlla bëgg ko baxi bokkaale gi baxi rëy làmmeñ yi baxi yenn maqaama yi ñuy takkal sëriñ yi te fekk na la ci bëri yu bëri bëgg sa waay ba xëpp rek ba takkal ko lu xeggale ko fu mu xeggut wala bañ ku dul sa waay ba xéesale ko foo xam ne xëpp na ko loola lépp tabaarakallaahu musiba mu rëy rëy rëy rëy la te nit léeg-léeg nga wax dara xeeb ko fekk kàddu ala kulli haal mën na laa yóbbu safara ndax kàddu ci la yàlla rëbbee ne walu inu bi maa xaalu waxut bi maa faalu mais bi maa xaalu moo tax léeg-léeg nit dana wax genn kàddu fa du dara yonent bi ne fekk mën na koo labal ci safara juróom-ñaar fukki noor juróom-ñaar fukki lolli fekk genn kàddu gu kàddu gu moo ko dugal safara te fekk yóbbu ko ca kon nañuy wàññi wax ji te yi buñ doon fu ne nii fekkoon na wax la ñu ne wax doy na moom daal a manqué liñ xëppale ci wax nañ ko wàññi yokk ko ci liñ manqué la ci jëf ndax ñi mën a xam résultat bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.